na ji Cheikh Tidiane Dièye gis-gis nga ci am waaw jërëjëf euh, soxna jaaratulaay defe naa noonu nga ko waxee noonu la demee mm-hmm. député bii di Abdou Mbow effectivement dafa interpellé jëwriñ ji nga xam ne moo yore wàllu ndox meeg assainissement yooyu di Cheikh Tidiane Dièye euh, li ko waral nag mooy coow li nga xam ne jox na fi fan yi jëm ci mbiru Cheikh Dièye mm-hmm. waaw Cheikh Dieng nga xam ne moom moo jiite woon ONAS bañ ko wàccee ak ñetti weer rek coow li ne kur mu mel ne am na lu ñu doon wax au départ waaye plus ñuy dem plus yeneen information di génn ci li waral véritablement problème am ah en tout cas communication officielle amagul ci ñaari ci ñaari wàll yëpp moom Cheikh Tidiane yi dafagul une communication officielle ci loolu euh, Cheikh Dieng aussi à part liy génn ci presse bi. gisaguma en tout cas mu def une communication officielle soit def conférence de presse wala mu def communiqué wala gis naa ne daal ci presse bi dafa am bataaxal bu ko ministre bi yónnee woon son ministre de tutelle di Cheikh Tidiane Dièye euh, jëm ci affaire euh, ay marché wu assainissement mm-hmm. alors après Cheikh ti euh, Cheikh Dieng tontu ko tontu ba nag bu fekkee li génn ci presse bi loolu la ko tontu dafay wane ne rek ah ñàkk déggoo bu metti am na seen diggante. bu méttee métti ci li waral euh, passation de marché yi ci wàllu assainissement parce que li Cheikh Dieng wax selon la press <laughs> je dis bien selon la presse mhm. mooy ministre bi daf ko envoyé message pour wax ko mu interrompre procédure de passation de marché yi ci yenn ci marché yi ONAS di def xam nga ONAS am na ci lu bari lu muy liggéey loo xam ne amul personnel bu ko def munu koo defal boppam te loolu bari na entreprise yu muy dal mhm. donc dañu mujj obligé di wéeru ci yeneen i entreprise pour def liggéey bi donc dañuy def appel d'offre entreprise yi soumissionné kiy gañe gañe euh, ci li press bi wax Cheikh Dieng dafa tontu Cheikh Tidiane Dieye ne ko lii nga may bëgg a defloo méngoowul ak lii président woote di jub jubal jubbanti. parce que yaa ngi may waaw yaa ngi may duggal ci entente directe boo xamante ne. Mhm. jaarul benn yoon. waaw am na sax yeneen yu ci am yoo xamante ne jarta xóotal mhm. euh, mu mel ne daal loolu. mooy actuellement li nga xam ne moom moo ne ci table ji ci li waral le limogeage de Cheikh Ndiaye waaw léegi nag euh, damaa gëm na lii mënoon naa ñàkk li tax ba coow lu jibee rek man ma sàkk woon ñu def une communication officielle. Mm-hmm. yu mel nii kat laa doon bañ. Mm-hmm. waaw fi mu toll nii coow li nee na kur député yi dugg nañ ci gis nga ko Abdou Mbow mi ngi interpellé le ministre euh, ci kaawu Cheikh Ndiaye mi damaa jàpp ne bu ñu defoon une communication officielle rek teel a nit ñi. amaana polémique du am incompréhension du am et loolu nag wax dëgg yàlla aussi dafay laaj léeg-léeg ñu ñuy jiitu yenn yi di anticiper yenn yi waaw loolu moom message bu may lancer les tenants de la communication soit présidence wala même dans les ministères souvent bu ko laajee nañuy nañuy teel a génn di yeewi askan wi. Mhm. waaw mais bu ñu bàyyee nii rek te gëm naa ne problème la boo xamante ne gars yi duñ ko bàyyi noonu parce que lii Cheikh Dieng tontu en li presse bu fekkee noonu la demee. lu doy waar la aussi parce que nag moom le ministre mënul choisir ay entreprise ba pare pour ñooñu gañe ay marché déedéet loolu moom Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Tidiane bu fekkee loolu la ko wax amu ci benn yoon te yoon sax da koo diglewul faf waaw entente direct mën na am parfois ci bu ñu tollee ci ay ay ay catastrophe nga xamante ne tey boo toppee procédure bi dafay yàgg comme li xewoon ci Covid bi malheureusement ñu bari profité ci sàcc xaalis mhm. parce que dañu allégé pour nga gañe marché pour affaire yi gën a gaaw yooyu souvent day am mais fii gisuma fii c'est vrai nawet la ñu nekk mais urgence bu tax ñu war a def entente directe pour def assainissement gisuma ko donc mënoon nañ def passation def appel d'offre ñiy gañe gañe ñu def ñu def euh, attribution marché yi ki ko gañe gañe ko déroulé. Mm-hmm. mais daal am na daal weer xëccoo ak werante boo xam ne moom c'est sûr et certain que am na diggante Cheikh Dieye ak Cheikh Tidiane Dieye léegi nag. kañ la ñuy am la bonne information au delà de li presse bi génne loolu moom day dépendre ci ñoom ñaar rek. voilà lan moo xew lan moo waral dàq bi ñu dàq Cheikh donc man damay invité. le le le ministre euh, Cheikh Tidiane yi bu ci mënee def une communication officielle pourquoi pas. Mm-hmm. def ko tekkiwul ne da ngay tontoon teg Cheikh Dieng déedéet mais askan bi ñoo war a xam li xew lan la parce que ONAS xaalis bu dul jeex lañ fay def pour xeex inondation yi. war nañoo mën a xam ce qui s'est passé parce que nag guléet aussi ñu gis directeur boo xam ne dañ lay fal même pas trois mois ñu wàcce la. même pas trois mois ñu wàcce la pour man li tax ñuy wàcce directeur lu rëy la war a doon bu fekkente ne looloo ci am du lu ndaw effectivement mais ñu ngi xaar daal une communication officielle pour que sénégalais yi mën a gindeeku ñu ci ne nag ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk aussi yaa ngi toog fi nga toog presse bi moom mooy génne ay bribes d'information député yi ku mel ne Abdou Mbow sukkandiku ci pour interpeller le ministre c'est est-ce que le ministre va répondre on verra. Mm -hmm. mais daal dans tous les cas bëgg nañu xam ce qui s'est réellement passé bu fekkee Cheikh Dieng dafa fauté ci yenn yi ñu xam ko loolu dafay nekk exemple pour ñeneen ñi bu fekkente ne ministre bi moo fauté aussi ñu xam ko parce que nag aussi <laughs> c'est pas parce que tu es ministre rek que nga am yaakaar ne yow danga am droit de vie et de mort ci say ci sa ay agent déedéet. Mhm. du demee noonu kon loolu daal vraiment ñu ngi ciy xaar peut-être dans les jours à venir euh, sortie euh, ministère bi. ñu gindi askan wi par rapport ak xëy na bu tontoo Abdou Mbow dinañ ci gën a am lu leer mais daal question yi ko ab Mbow posé mi ngi ko jële ci li nga xam ne presse bi génn na ko ci li jóge ci Cheikh Dieng ñu nekkat kat lii kat moom moo tax wala njort nañ ne lii moo tax ñu dàq ko mm-hmm. donc euh, ay coowu oto amoon na ci ak yeneen ak yeneen mais daal dama gëm ne euh, bu ñuy rendre compte régulièrement askan bi Euh, jiixi jaaxa du am ci bopp kenn. Mhm. et loolu nag je pense que les du pouvoir ñoom ñoo ëpp intérêt jamono yi parce que ñoom ñoo yor nguur gi. ñoom ñoo ëpp intérêt. Mhm. di teel lever ces polémiques là. pour ñu mën a dem vers l' essentiel pour mën a liggéey réew mi. continué mhm. leen ngeen aimé partager live bi su ko defee ñu jotagul notification bi jot ko ñëw ànd ak ñun ci waxtaan bi Ami Cissé mu mel ne jamono juñ toll euh, euh, ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Dieye nekk mhm. tuteelu Cheikh Dieng mi nga xam moom euh, moom la ñu dàkk récemment jamono juñ toll nii nag la ñu koy tuumaal bokk na ci ay li nga xamante ni rek moo ñeel ay li nga xamante ni mooy ay décisions yi nga xam daf koy jël ngir di suspendre yenn ci ci ay contrat euh, di amal ay entente directe ak ay entreprise loolee jamono juñ toll na Abdou Mbow jàpp na su ko defee dafay salfaañi li loi bi xam ne donc question yooyu la ko daal di posé ban mhm. euh, nga ciy def mhm. xam nga jaara mbirum communication dafa nekk loo xamante ne mbir mu ama am solo la ñu ngi ko fi wax benn bés mhm. à chaque fois ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci pouvoir bi pour man waruñu xaar sax yéen ñi di am pour ñu taxaw di communiquer ak askan parce que loolu euh, dafay indi benn ne ñoo leen fi fal parce que bu fekkente ne coow jug na ci koo xamante ne ministre ministre la ak koo xamante ne euh, daanaka moom moo ci moom lay dépendre pour amal ay liggéey ñu dégg ay coow yoo xamante ne dox na seen diggante moom nga xamante ne moo di Cheikh Tidiane Dièye ak euh, Cheikh Dieng bi nga xamante ne moom la ñu dénkoon ONAS ci diiru trois mois rek ñu gis ne ba nga xamante ne conseil des ministres am na ñu daal di koy dàq mu nekk ab euh, tole boo xamante ne ñëpp doon posé wu question Cheikh Dieng moo nekk nit koo xam te moom lañ ndëkk limogé eh, ci li nga xamante ne moo di eh, nguuru eh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye mm-hmm. ay kàddu jib peut kenn ku nekk ci ñoom amagul communication officielle boo xamante ne jóge na ci ñaw ñëw ci li nga xamante ne moo di taskatu xabaar yi wax ak nga information yoo xamante ne jóge ñëw ci li nga xamante ne moo di askanu Sénégal dañuy faral rek ñoom du ñuy faral di éviter yenn yi parce que dañoo war a xam ne dafa am benn opposition boo xamante ne moo taxaw temm bu defante ak ñoom benn opposition boo xamante ne dinañ xaar benn porox ndollu bu ñu mën a dugg pour dégg pour mm-hmm. ñoom ñoo war a conscient ci côté boobu parce que nit bu fekkante ne ngeen di liggéey même bu fekkente ne